tàllal leen loxo yi gën ji mindeef jaara way gën ji mindeef jaara jinjin leen aouzu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim inna alhamdulillah nacmuduhu wa nastacinuhu wa nastaghfiruhu wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihi llahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu ala man qaala bu'ithtu li utammima makarim al axlaq wa qaala aydan laa yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain ani sayyiduna muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi téléspectateur u fkr 92 point nañu fi ak yéen di xamalante sunu wàllu diine di ko jaare ci Laxdariyu tabaarakallah di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp tey nag ñoo ngi woon ci faslun fi nifaasi bunt bi nga xamante ni mooy jàngale gësin gësin gësin bokkul ak deret bi nga xamante ni mooy deret bi ngay gis weer wu ne nifaas mooy deret bi ngay gis boo amee doom ba pare kooku lu ñuy wax gësin deretu gësin deret bee nag tabaarakallah bi nga gis weer wu ne koo koy xayd waaye deret bi ngay gis soo amee doom mooy deretu gësin la arab di wax nifaas mu ne wan nifaasu kal xaydi fii man ii mu ne wan nifaas deretu gësin kal xaydi comme deret bi ngay gis weer wu ne ñoo yem fii man ihi ci tere kon deretu gësin boo ko gisee doo julli doo woor doo tawaaf comme niñ la ko teree ci deret bi nga xamante ne moom ngay gis weer wu ne comme xaydi ñoo yem ci wàllu tere yin la tere wa ak sëru deretu gësin nag mooy boo amee doom ba pare deret jooju na yow man deret ji mën na dem di dem di dem ba ci juróom benn fukki fan deux mois xam nga dañ la wax deret bi ngay gis weer wu ne mënul passé fukki fan ak juróom mënul ne jàngoon nañ ko ca gannaaw mënul passé fukki fukki fan ak juróom mooy règle yi ngay gis chaque weer mënu ko passé su ko passé rek demal nga seeti gynécologue moom lañ jàngoon ca gannaaw léegi nag bi nga xamante ni moom la ñuy jàng tey mooy deret bi nga xamante ne gis nga ko bi nga amee doom kon wuute na ak bële bëletu tu passé fukki fan ak juróom waaye bi ñu jàng tey nee nañ mënul passé juróom benn fukki fan mën na dem nag ba ci deux mois mën na dem ba deux mois kon Cheikh Abdourahmane Laxdari nee na Cheikh Abdourahmane Laxdari mooy borom téere bi mooy ki bind téere bi waa akasaru li gën a bari sittuuna yawman mënul passé ñaari weer fa izan qataa damu xablaha fi yawmil wiladati igtasalat wa salat mu ne fa izan su fekkee arrêté demmu dem deret ja xablahaa lu jiitu loolu kon deret ji mën nga am weer mu arrêté mën nga am quarante jours mu arrêté mën nga am fukki fan ak juróom mu arrêté mën nga am ñaar fukki fan mu arrêté mën nga am juróom fukki fan mu mën nga am juróom fukki fan ak juróom mu mën nga am juróom fan ak juróom mu arrêté waaye mën nga am juróom benn fukki fan ba juróom benn fukki fan mën na ñëw ba foofu du ko weesu nag du ko weesu bu ko weesoo rek dootul deretu gësin kon leneen la kon am nga problème nga dem seeti gynécologue mu ne faysan xataa damm su fekkee deret ji arrêté na xablaha lu jiitu juróom benn fukki fan yooyu buñ la ko waxee ne c'est pas parce que impérativement deret ji dafay nekk juróom benn fukki fan déedéet mën na nekk vingt jours arrêté mën na am vingt cinq jours arrêté mën na am un mois arrêté mën na am un mois cinq jours arrêté mën na am un mois dix jours arrêté mën na am un mois quinze jours arrêté mën na am un mois vingt cinq jours arrêté mën na am un mois vingt neuf jours arrêté mën na am soixante jours soog a arrêté waaye du ko passé wala fii yowmil wilaadati bu fekkente ne deret ji arrêté na donte bés bi nga amee doom la donte bés bi nga amee doom la gis nga doom rek sa doom judd na automatiquement immédiatement deret ji ay heure arrêté même donte loolu bu la dalee demal nga sangu ji set nga julli walaw fii yowmil wilaadati donte bis bi nga accouché la su boobaa irtasalat demal nga sangu ji lat te nga julli bismillah ma expliqué waat deretu gësin mooy deret bi nga xamante ne moom ngay gis jamono boo amee doom deret jooju mënul weesu deux mois cela na veut pas dire que deux mois rek lay am impérativement dañ la wax ni du ko weesu kon mën na arrêté bala ngay am deux mois mën na arrêté ci weer mën na arrêté ci ñaar fukki fan deret ji mën na arrêté ci un mois et demi saa bu deret ji arrêté rek demal nga sangu ji set nga julli mën na arrêté sax bés bi nga amee doom wala fi yawmil wiladati su boobaa nag igtasalat demal nga sangu ji wa sallat ti nga julli bismillah ñu dem fa iza awadaha damm fa in kaana baynahuma xamsata achara yawman faakasara kaana thani xaydan wa dammu ila ula wa kaana fi tam min tamaami nifaas mu ne su fekkente ne fa isa awadaha dammu su fekkee darja da nga jékki-jékki da nga ci diggante bi diggante bi diggante ñaari weer yi nga jékki-jékki deret ja arrêté deret fa in kaana baynahuma xamsata achara man su fekkee toog nga fukki fan ak juróom waa akasa fa akasara wala lu ko gën a bari amaguloo deux mois am nga doom amaguloo deux mois deret ji arrêté na nga am weer deret ji arrêté wala nga am weer a genn wàlla deret ji arrêté wala nga am ñaar fukki fan ak juróom deret ji arrêté nga toog quinze jours quinze jours wala vingt jours wala dix sept jours wala dix huit jours faa kasara quinze jours wala lu ko gën a bari kaana saani xaydan nee na deret jooju dikkat doo jooju dikkaat ginnaaw bi nga toogee quinze jours nee na deret jooju dootul deretu gësin kooku léegi deretu règle la règle la bul ko compter ci gësin gi kooku règle la règle la mooy deret ji nga gis weer wu ne deret ji dellu si waat règle la wa ilaa wa ilaa damma ilal ula wa kaane min tamaami nifaas wa ilaa mu ne su fekkente ne nag amaguloo deux mois maa ngi expliqué wasin nga gis nga deret gis nga deret gis nga deret amaguloo deux mois attention amaguloo deux mois deret ja arrêté ba deret ja arrêté nga toog dix jours mu arrêté dix jours dellu si waat jours dellu jàppee ko deretu gësin deret jooju dellu si waat deretu gësin la boo toogee juróomi fan mu arrêté juróomi fan deret ji dellu si waat jàppee ko gësin juróom-ñaari fan jàppee ko gësin gësin mooy deretu accouchement fukki fan jàppee ko gësin fukki fan ak ñaar jàppee ko gësin fukki fan ak ñett jàppee ko gësin fukki fan ak ñeent jàppee ko gësin mooy deretu accouchement quatorze jour mais automatiquement immédiatement boo toogee quinze jour mu dellu siwaat quinze xam nga quinze dootul deretu dootul deretu gësin su boobaa deretu règle la yaakaar na li ma wa ilaa bu dul loolu ëwali mooy bu njëkk bi wa dina nekk min tamaami nifaas ci wàllu gësin yaakaar naa li wax leer na bismillah maa ngi reprendre tey ñoo ngi jàng tey bunt bi nga xamante ne mooy jàng deretu gësin moom la tubaab di wax loci bokkul ak menstru menstru mooy règle douloureuse mooy deret ji ngay gis weer wu ne ba koy menstru lochi mooy deret ji ngay gis jamono boo amee doom kon ñaari façon deret moo am deret bi ngay gis weer wu ak deret bi ngay gis boo amee doom kii mooy xayd kii mooy nifaas bismillah mu ne wan nifaasu gësin mooy deret bi ngay gis boo amee doom kal xay di mi ngi mel ni deret bi ngay gis weer wu ne mooy règle bi ñoo niroo fii man yi ca teree la tere ci bii moom lañ la tere ci bii maanaam doo julli doo doo def yenn yi lañ la tere ci deretu moom lañ la tere ci deretu gësin wa akasara li gën a bari ci deretu gësin mooy deretu accouchement mooy na sittuuna yawman mënul passé soixante jours mënul passé deux mois fa isaan su fekkee arrêté na dëmmu deret ja xablaha lu jiitu muy am ñaari weer lu jiitu muy am deux mois walaw fi yowmil wilaadati donte bés bi nga accouché bés boobu la deret ji arrêté irtasalat demal nga sangu ji wasalat te nga dem nga julli ji bismillah fa iza awadaha dammu fa in kaana baynahuma xamsata achara yawman fa kasara kaana thani xaydan wa ila damma ila ila al awali wa kaana min tamaami nifaas léegi gis nga deret wasin nga gis nga deret gis nga deret gis nga deret gis nga deret weer gis nga deret ñaar fukki fan gis nga deret ñaar fukki fan ak juróom gis nga deret weer ak genn wàll mu arrêté nga toog fukki fan ak juróom ba nga toogee fukki fan ak juróom deret ji dellu siwaat su boobaa dootul deretu gësin su boobaa dootul losi masturi la deretu règle la bismillah léegi nag bu fekkente ne da nga toog weer weer yaa ngi gis deret wasin nga nga toog weer nga wasin toog weer deret di arrêté juróomi fan deret di dellu ba tey gësin nga mooy continuer ba tey deretu accouchement mooy mu arrêté fukki fan mu dellu mu dellu siwaat deret di dellu ba tey jàppee ko deretu gësin fukki fan ak ñaar deret di dellu siwaat jàppee ko deretu gësin ñett noonu fukki fan ak ñeent noonu aussitôt moom am 15 jours rek jàppee ko deretu tabaarakala règle douloureuse macha allah koo koy bunt bi wa ilaa dammu ilal awali wa kaana min tamaami nifaas waxtu yu dab nañu ñoo ngi nuy ñëpp ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi baalu ñëpp àq ñoo ngi baalu ñëpp àq tabaarakala seen émission ngi noonu muy ma sopp rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamu aleykum wa tàllal leen loxo yi gën ji mindeef way gën ji mindeef jaara